Euh, loolee la ñu tàmbalee woon quartier général bi euh, tey nag euh, macha allah ñu ne bi ñu déggee wooteeb émission bi rek ci la feeñ ñu ngi ci sant yàlla bu baax tey ndokkeel ay waay waajuram sunu sëriñ yi nga xamee ni ñoom ñoo sàlloo du ñu ñaanal bokk na ci sëriñ Maodo si yàlla na fi yàgg te wér waajuram itam dib sang moom muy sang donc ñu ngi gërëm ñi nga xamante ni ñoo ci jàpp ñaan ci ba mu mujjee feeñ tey ñaaxaat waay juri rek ñu gën a toppatoo xale yi euh, ndax léegi jamono neexatul Assane ci fast track bi euh, mën nañ cee sànni ay kàddu rek très rapidement euh, ndax lii bi ñu ko yëgee démb am nañu naqar mm-hmm. mais tey kontaan nañu ci nii mu feeñee Baye Cheikh mbégte rek lañ ci am wax dëgg yàlla di ñaanal itam sang ba nga xamante ni itam moom moo réer ca Touba yàlla na ko suñu borom subhanahu wa taala nit comme ni nga wax rek xale moom il faut ñu koy toppatoo ndax sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon ñu naka lu si tegu mu ne fa nee na képp koo xamante ne nekk si diina ji te weguloo suñu ay mag joxuloo leen cër respecté woo leen xale yi joxuloo leen seen cër maanaam doo leen surveiller doo leen bàyyi xel ak yi nga xamante ni mooy dox diggante wayjur ak doomam sàmmantewuloo ko nee na yow yaa boole sa bopp si sunnaam mooy bokkuloo si kon xale yi loolu mooy wane dañu am cër bu mag a mag a mag si diine yi nga xam ne ñoom moom mooy diine l'islam te ëllëg itam ñu mën a wax ñoom la l'islam bi yaakaar kon nañ nañuy veiller si ñoom bu baax a baax di ñaan yàlla yi gën a am taxawu si ñi nga xam ñoom ñoo di xale yi ndax ëllëg mën nañ am amal njëriñ réew mi Baye Cheikh. macha allah donc loolu ñun ñëpp a ngi koy on a reçu tellement de messages entre démb ak tey euh, ki ñu dese nag euh, mooy sëtub Serigne Fall bi nga xamee ni mu ngi bëgg a def ay weer nag ñu koy wër euh, ñu ngi ñaan tey ñaanaat tey ñaaxaat ñii ñaan ñaan bu ko defee nii sunu sang bi feeñee moom it mu mën a feeñ dellu ci ay njabootam mu nar a doon njëriñu Sénégal ndax mm-hmm. xëj na ñoom sax lañu gis mais bëri itam ay xale yuy réer mm-hmm. donc ñun on vous promet ak fi audience bi toll képp koo xamante ni soxla nga ñu euh, dinañ leen defal ay alerte euh, bu ko defee ñu mën a euh, feeñal sunu doom yi nga xamante ni wax dëgg yàlla ñu ngi réer te loolu mu ngi bëgg jaaxal ñu bëri donc moom sang bi itam ñu ngi ñaan mu feeñ loolu jaaxal na sax Euh, euh, ku dul jullit ndax bi mu réeree ak léegi yàgg na te yaay euh, dafa dafa dafa dafa dafa foor ci doom mhm. voilà donc bu yaay toogee gisul doomam loolu dafa naqadi mhm. bu ñu ko gisul nag pendant des mois amul kenn koo xamante ni rafetlu na ko donc ñu ngi ñaan daal mhm. lu ci waay mën rek def ko ci ba suñu sëriñ bi mën a feeñ delluwaat ci ay njabootam ñu ngi leen di xaar Sophie balaa nga ñuy toggal tey defe naa am nañu ay plateau beignet de ah ah Sophie ndey kura <laughs> ah, la la bon koor gee ko teel a jàpp euh, beñe yi nag mu ngi jógee euh, prestige traiteur euh, entreprise service